dina wutal quelques images par rapport à ce qui se passe actuellement dans Dakar et ses environs salaamaaleykum. allo. allo oui maaleykum salaam. ñu ziar naa leen. jële delloo ziar dañu bal yokk kàddu gi. waaw. dañu écouteur bi la waaw ziar naa leen ba naka la leer na. waaw waaw leer na lañ écouteur yi la. waaw noonu. loolu la bismillah ñu ngi ziar ma ne na Sénégalais yi génne dimbale na Sénégalais yi génne dimbale Ousmane Sonko mu génne ci place boobu. Hmm. te du ma am leneen du ma leen wax tax ñu jàpp kii nii Pape Alé Niang li tax ñu jàpp ko xam ngeen ko. Mhm. Pape Alé Niang jamono yële passé daf doon wax ni xam na nervi yi nervi yi nekkoon si biir affaire yi xam na ko te am na ñu ñu joxe ay kii yi naka ay renseignement yu leer na ne. Mhm. ñu nekk si état bi ñoo joxe ordre pour ñu rey xale yi. da yaa may dégg. Mhm. waaw léegi Niang génnewut génnewut euh, euh, audio yi génnewut ko mu ngi ko denc mhm. léegi jàpp nañ Sonko bés bu ñu jàppee Sonko war ko yóbbu ko war ko tegal ay vidéo mhm. ñu dem jàpp kii ni ñu dem jàpp Pape Alé Niang denc bañ Pape Alé Niang def river mhm. ndax comprendre ngeen lu may wax bu baax comprendre nañ la bu baax baax waaye nag jamono ji li ñu koy toppee mooy euh, ni nga wax dee sax <laughs> maa ngi jégalu je pense que naa ci naa ci naa ci parce que su nekkee par rapport ak information yi li mu doon joxe moom lañ koy. waaw waaw li ñuy jàppee Pape Alé Niang li ñuy jàppee Pape Alé Niang. yéen du leen ko wax. waaye da dañuy dañuy calculer ak suñu xel. Mm-hmm. dañuy dañ. semaine bu passé ne le dañ ko dañ ko téléphone di ko wax affaire yi nervi yi. Mm-hmm. déglu bu baax. Mm-hmm. ngir yàlla rek. ma sëñ bi li ngay wax xam nañ ko bu baax. léegi Pape xam nañ ko bu baax. waaw. defoon na fi vidéo. waaw léegi bu ñu jàppee sonk ko denc nañ ko waaw mm-hmm. denc nañ sonk ko. Mm-hmm. procureur bi def na ay vidéo teg ci télé bi ñëpp di seetaan ñu ne sonko moo wax li sonko moo wax laa. Mm-hmm. si ëllëg si muy samedi ñu dem jàpp Pape Alé ñaar lu tax ñu jàpp ko mooy vidéo yooyu noonu ñu doon wax noonu mu ngi ko denc yu yu nervi bañ Pape Alé Niang delluwaat si télé bi di wax ni lii ak lii li procureur def yoon ak yoon lii ak lii ak nii di wax turi kilifa yi bokkoon si affaire yi si deal bi loolu tax ñu tee Pape Alé Niang te Sonko tamit deful dara lañ bàyyi Sonko si jàmmam mm-hmm. na Sénégalais jóg jàppale Sonko moo gën ndax Sonko suñ ko xoree Macky Sall na toroxal Sonko d' accord ngir yàlla na Sénégalais yi jóg jàppale Sonko ngeen jégal ma nag doomi Gambien laa nag waaye nag dama am sañ-sañ nag pour wax Mhm. ñëpp ñëpp a amal sens. effectivement Sénégal ak Gambie yëpp benn leen. merci merci on comprend jaajëf. jaajëf ñoo ngi lay ñoo ngi lay euh, ñoo ngi lay jaajëfal ci kàddu ak xalaat boo nga xam ne am nañ ko parce que aussi ne Pape Alé Niang moom jamono ji aussi ñu koy daal di euh, teg euh, loxo bokk na ci liñ koy toppee moo di diffusion de fausse nouvelle waaye ak itam li nga xamante ne. Euh, moo di appel à l'insurrection donc euh, mooy ñaari euh, tuuma yi nga xam ne jamono ji moom la ñu teg ci ndoddam xam naa moom tamit ci wàllum audition am suñ ci àggee lépp li nga xamante ne xibaar la dinañ ko jëm dinañ ko dinañ ko dinañ ko daal di waxtaanee wàllu manifestation aussi sànq maa leen koy wax ne jamono ji am na foo xamante ne gone yaa tam commencé nañ faa commencé nañ faa taal xam naa ci kanam itam nañ ci dinañ ci dikkaat illustré ko kii image yi nga xamante ne daal dinañ koy am salaamaaleykum waaleykum salaam. mbokk mi na ngeen def. ñu ngi baa ngi si jàmm. ñu ngi sant yàlla foo ñu woowee. maa la woowee Canada. naka waa Canada. ñu ngi fi ñu ngi jàmm. maa ñëpp nga doxal. waaw ñu ngi góorgóorlu. ayca bisimilah si waxtaan bi. waaw waaw waaw man dama am gàcce rek. Mhm. parce que tubaab bi ñoo ñu doon coloniser. est-ce que. moo tax bu ma gisee démb Juan Branco ñëw en tant que tubaab en tant que français. Mhm. ñoom du ñu wax ne da ngeen a war a yéegul di wax ba yow sa rangoñ day tuur ñun africains yi noir yi dëkk Sénégal yi ñun bëgguñoo libre ñun ay jaam lañ bëgg a mhm. lu grave la. moo mhm. waxoon àdduna dina dem ba toll fii nii ak tubaab. Mhm. français ñoo gën ñoo bëgg suñu réew ñun mais bu ñu jàng dafa war a dog. da nga daan indépendance da nga a libre. ay juge ak magistrat ak ay procureur ñu ne deux mille duñ ay jaam lañ bëgg a doon te lu garaaw la. mooy li ñu ko gis cheikh bi. instant bi ñu toll nii police ak gendarmerie dañoo dem kër Antoine ko tëj ko dem kër procureur Diop jàpp ko dafa am ay nit yu baax ay nit yu am xam-xam. instant bi kenn mënul la wax parce que ku wax ñu ne ay nit c'est la waaye ñu jàpp la. ñoom maître Boukounta Diallo. d'accord ñoom maître Mame Adama Gueye borom xam-xam yi nekk dëkk bi yëpp ñu ngi toog xam lu leen métti mais ñu ñoo wax. Mhm. parce que ku wax ñëbal ay bandi sa kër. Mhm. ñu rey la mbaa ñu tuumal la su la jàpp la tëj la. Mhm. mais nag du yomb. bi président bi comme bëgg na réew mi yëpp tàkkee moom il s'en fout l'essentiel moom na atteindre objectif rek. Sénégalais yi war a jóg wax moom pour mu bàyyi lépp toog di seetaan na ko loolu def baax na léegi jeunesse bi dina jóg. Mhm. léegi buñ jëlee tànk yi taal ko. bu nekkee yi. Mhm. jël oto ko lépp luy béy ci réew mi ñu taal ko. Mhm. léegi nag après surtout ñan may dégg fii ci bitim réew ak coordination yi ma gis gars yi di ko coordonné nii bu booyee jógee peut être jógandoo maanaam dara dootul des ci dëkk bi. parce que gars yi xam nañu ne jour bi gàtt Ousmane Sonko vendredi état mi ngi xaar bu ñu jóg mën a coxte mais booy ils sont très intelligents dañu dañu yeewu. Mhm. dañoo toog ne nañ bàyyi police yi bàyyee ba toog ba toog ñu doog a jóg gis nga bu booy jóg day di mhm. bu ñu jógee dara dootul la ci dëkk yi parce que dem ba gars di wax sax boo dëkkee ci benn koñ. Mhm. fekk kon bi nga dëkk nii am na benn gendarme boo xam ne sa dëkkandoo ya nga toog kon wala am na benn police boo xamante ni sa dëkkandoo ya nga toog kon da ngay dëkk soit da ngay dëkk Kër ne sama koñ am na ay gendarme am na ay police seen kër fii la nekk fii la nekk fii la nekk léegi gars yi ñu mhm. ko police kër gendarme yi pour se à saka gaaw attaque boobu parce que loolu affaire bi day métti ñëpp famille gendarme yi toll comme ni comité yi seen jabar yeeg seen doom yeeg seen yaay pour lan loolu mhm. lu la wax noonu. bu tax gouvernement bi bu bu foofu noonu. te li gën a yóbbu mooy jàpp Antoine Diome tëj jàpp procureur bi tëj jàpp maa xam jàll tëj parce que ñun dañu lay bëriwu quoi. Mhm. ñun ñoo bëggul nit ñi nekk si jàmm si at yi. minorité bi toog fii tiim di ñu tufli di ñu saaga ndey di ñu wala njëkk di fekk leen. li ñu war a mën dañoo paresseux bëgguñu liggéey réew mi te mënuñu koo liggéey te pare pour liggéeyu ko. fan yi place immigration clandestine ñaata moor moor réew mi amul fenn fuy avancé léegi ñu ne kii porte espoir de jeunesse bi yaakaar naa nit ñi bëgg a dagg boo jàng bi suñu or suñu gaz suñu pétrole ñu jaay ko am ci xaalis réew mi ñëpp naat ñu ne benn dizaine de loolu am. lii am mooy ñoom seen biir ñoo fi di seetlu xaalis réew mi jël majorité bi di leen tufli. Hmm, d'accord ñu ñu ñu ne ñun bu ñu wax quoi nañ toog nangu loolu quoi accepté ko. instant bi la ñu gis Khalifa Diallo Sall ci xamoo ne am lu teel a daw génn dëkk bi. di seetaan benn dizaine di ñu tufli quoi. Hmm. seen doom yi nekk fii Amérique ñu nekk Canada oto yi ñuy dawal doomu président yi ñu ne ñu koo dawal. tey mhm. lañ ko jëlee. Mhm. xaalis yu réew mi Sénégal mbay mi doxul. Mhm. géej gi jaay nañ ko ah. transport bi doxul ah li dox mooy nga nekk sant Mbàkke wala nga sant Ñas wala nga sant si xam nga wala nga nekk politicien loolu mooy dox. loolu bi. d' accord merci. ok jaajëf. d' di ko jaajafal bu baax a baax di kontaan ci ñoom di xaar yeneen réaction ci 77 810 90 90 77 810 90 90 mooy euh, numéro bi nga xamante ni moo leen di mën a may ngeen daal di euh, bokk euh, ci waxtaan wi sànq nag maa leen doon wax.